kon ba tey ñu ngi woon ci monsieur le maire Babacar nan Mbaye waaw Babacar Mbengue Babacar di sant bi rek ko doy waar ndax sama kàll la ndax mënoon ngaa sant ñàng mais ñu ngi kontaan ci loolu def ci mbëru yaraax ndax ñun famille làmb bu ñu gisee kenn ku sonn ci nitu làmb mm-hmm. dañ lay bëgg ndax ñun nga ko defal duñ sañoon mbër mu ne day am teraanga mm-hmm. am sutura euh, tuuti rek ci ginnaaw sa combat ak tonnerre mm-hmm. mu nekkoon combat bu doy waar Moussa nga jàpp tonnerre mel ni gaynde gu jàpp gaynde gu jàpp bëy bëgg ko bëgg ko lekk lan la woon nan ma baal ci waxin bi sax. parce que sa combat ak Tonnerre. ñëpp naan lii mi dóor yi mystique la wala lan la. lan la woon. entraînement bari la wala mystique la woon. non pourtant du mystique. maa ngi remercier bu baax a baax a baax Aliou Sarr suma entraîneur. suma xarit ak suma ñetti ñe mbir yëpp mais suma ma limee ñetti ñooñu na si ku si gis sa bopp ku si mel ni Pape Diop Loso ak euh, Boynar parce que yaakaar naa ni Tonnerre moo nëppoon poids. Mhm. mais combat ba maa ngi gërëm suma rakk ba nga xam ni tonnerre ëpp ko poids mais moom wax Abdou moom la ñuy gars yi wax bëlo euh, fu ma fu ma gis gis na ko fa Karim maa ngi koy nuyoo passage sama rakk la suma xarit la suma suma lépp la kooku suma lépp la lépp tey yàlla moo def loolu tey bi loolu amee may contact gars yi mu ñëw ne moom Moussa maa nekk naam mun ma dama bëgg nga yëkkati ma may nat sama rakk la ma jël ko daw moom mu yaakaar tàndu la ma jëlaat ko daw moom def ko répété ko. pneu caterpillar ñu teg ko may jël pneu bi di ko bërëñ lu toll ay cinquante mètres dama koy jël di sànni di ko indiwaat. ñu ne ma tonnerre tollul nii. tonnerre ëppul lii. tonnerre gënul gis lii. effectivement. soxla ñu dara si combat bi tey lañ bëgg nga wane kan mooy Moussa Ndoye ci lan danga mën a bëreeg ku ne. man ah daal léegi la nga ko bëggee parce que dama nekk mbir defee erreur ma ko. effectivement mais ma koy waxee. Mhm. yoon tamit. dama nga mhm. teg ma si yoon. Mhm. parce que man ma yilif. ak ak te moo lay. waaw bañ ma ku ma yilif man moo lay dimbali. yàlla suturaal ma bi ñuy wax ma ne ah yàlla baax na sama entraîneur ne ma leen laa la sant tonnerre am bëgg nga dóor ko. entraîneur moo la wax moo la digal loolu. waaw sama bàyyi Ngouroussar ni ma tonnerre est-ce que xam nga ko dóor mu daanu gëm nga loolu man ko bañ a gëm mu ma def ko man ko incha allah rek moo tax bi arbitre sifflé avant ñu dem si géew bi sama entraîneur daf ne ma ndax fàttewul lu ñu la wax man ko déedéet mun ma tonnerre do désaxé ko doxal ak moom gauche dox droite ragaloo ko. Mm-hmm. boo doon dalante man xam maa ne ëpp la doole mën na la ëpp yaram mais du doole ci dina dina dina yëg ni xale dal na si kawam moo la mag man ko d'accord bi ma doxee gauche dox droite dox gauche dox droite man kii su ma mimee ndax da yaakaar dama ko song parce que xam na ni saan Ndoye day song mhm. bi ma dayee mimé wàcc suuf mu daw wàcc ma ay kàddu mu xool leer mu kanam leer na leer nañ mu dóor si ñaari coups kuy dal yooyu xam nga ku xel xel lu si jiitu rek lu si nekk rek da koy def borom da koy def mhm. bi ma dóoree ko dóoree ko kuy dal droite bi dal gauche bi ñëwaat beneen droite bi ñëwaat xelam dara nekk mhm. ci lu reculer di la reculer tey mu reculer ba muy ñëwaat mu ngi koy wax ba ci daan benn émission mu ne bi muy ñëwaat ci erreur entraîneur am la moo kaawam dañagul. dañ ko doon parce que sama entraîneur mu may wax ni ma combat bi ko kii pareegul kii fii ak cinq minutes parce que waaw parce que moom fi mu toog na ma toog maa ngi dégg coup bi ni mu dalee kii pareegul. accéléré combat bi loolu du galaaj nga yaakaar parce que coup bi ñu doon seetaan sax coup daf ñu xaw a dalaale. non loolu du mystique nga yaakaar. parce que dóor mbër mu daw wala ginnaaw man yàgg ba ci laa mais loolu moom ma bariwul lu ma koy gis. sentir ma ko nag wax vraiment sentir ma woon gàllaaj. te da ngaa bu sax da ngaa bëri bagage de. macha allah macha allah da nga bëri bagage catuma la. man amul dara euh, non parce que loolu dafa jaaxaloon ñu bëri quoi. tonnerre ak ni mu def Yékini Junior ñu gis ak di nga def tonnerre. Euh, waaye rax nag combat boobu seen combat la de combat boobu dañ ko jëloon au sérieux combat bi lañ jël au sérieux mais tonnerre xëy na li tonnerre waxoon quoi. lu mu waxoon lan la waxoon. dafa dina dugg yarax wan leen ni duñu tus waaw yarax nag. ah na waaye bu ko waxee tooñ ne waaye yarax. waaw yarax nag dafa nekk dëkk baa nga xam ne man damay tiitoo yarax nit ñi xamuñu li tax ma damay tiitoo yarax. Mhm. tey kilifa ñi ngay dégg ñuy wax yëpp jaar nañ fi. waaw ci tarix yëpp naa laa wax nag. macha allah. Seydina Issa mu ñëwee fi la wàcc ci gaar yarax. yarax la nekk sëñ Babacar Si fi la jaar. taawam sëñ Moustapha jaar fi. sëñ Touba ay doomam jaar nañ fi. Mhm. kon ñun ñu suñu dëkk. déedéet drapeau yaraax daal ngay défendre. waaw man drapeau yaraax ku laal yaraax laal ma ak foo mën a nekk nag boo laala yaraax rek laal ma tey boo bëggee sax nga naan Moussa Ndoye mer naag merul laala man Fara du ma laal yarax yarax jàmm laa leen yéen an man jàmm laa woote sama diggante. waaw loolu la may looloo indi woon problème bi kon sa diggante ak tonnerre ba tax nga defoon ko loolu. waaw waaye rax ne ma li leen bëgg. Mhm. parce que dégg nga ma wax Moussa Ndoye bu 10 bu 9h jotee mu yeewu commencé ndekki ba suur jël ay ñëw taj si buntu kër gi dem ñaar dugg si géej gi génn.

mu bëre ak Lac Rose du Moussa Ndoye bi man ko benn la. Mhm. mu ma la man ko bés. bés bi dama ko jox li mu moom nekkul la ma koy jox ak tricherie mhm. non non. Mhm. dama koy jox ak li mu li nga xam moom la at moom moom la bis bi laaj. su ma sangoo géej génn. Moussa Ndoye stade la bëgg di gis. su ma paree nag ba ñëwaat ba sanguwaat géej. Moussa Ndoye moom Moussa Ndoye la wax. Moussa Ndoye la nekk ak waaw Moussa bu sago géej ba génn stade lay gis. waaye bu génnee stade ba ñëw sangowaat géej génn. pare naa si pare na ci Moussa Ndoye. boo ma laajoon sax li nga def lii lii man la mooy loolu. tiis nag. waaw muy sa rakk sa xarit moom nga ubbee sànq. Euh, ma gis li doon togg pour di ko jox muy tànk jàmm lépp nga ko doon def ci entre jullit ak moromam nga ko doon def ci entre mbër ak moromam yàlla moo ko sotti mais xam nga man xam naa daan nañ ci waxtaan lu bari nga ne ma dama koy def lii laahi war a suuri ndax mbër la te am nañ ci moom yaakaar mhm. Jules Baldé Junior da nga yëgee génn naa duna sa diggante moom ak li nga doon wàcc moom waaw Jules Jules dama ni yàlla moo dogal moo ñëw mhm. ndax li tax yàlla moo ñëw mhm. man loolu laay wax ndax tey dafa nekk ak suñu suma ki nga xam suma kilifa la. Mhm. muy ku mel ne Eumeu day kilifaam. Mhm. ndax tey kuy wax Pikine rek. Mhm. Eumeu seen ngay wax. mooy capitaine bi mooy mooy capitaine bi. mooy seen xalifa général moom laa ko tuddee. bu yàlla dogalee loolu lépp am. di ko ñaanal moom tamit li may dégg si moom. vraiment yàlla na sedd. amiin barke yàlla na sedd ndax lu dal mbir rek. waaw moromam la dal moromam wala dal. war na ko sentir. si sama gis-gis man. loolu am sax. tey bu fekkee loolu dafa dal Jules Baldé ak yu si amaat. sant yàlla la am na ñaa nga xam ni léeg-léeg moo ko sama benn xarit ne ma Moussa a nga wax la man la nit nit wërsëgam mën na génn àdduna wërsëgam des ay fan si wërsëgam si lañ si lañ si lañ jàppalee yaayam si li dégg ñu def na loolu am sax parce que loolu lépp dem ngeen ko indi waaw si demam hmm. tey bu fi nekkoon amaana loolu mën naa bañ a mën na bañ a am mën naa bañ a feeñ hmm. waaye moom itam mën naa liggéey ba yàlla defal ko comme mu jëndal ko boppam hmm. wàllu suñu borom moo ko moo ko def moo ko mm-hmm. dogal mm-hmm. ma sante ko sante sant nañ ci yàlla bu baax a baax di wax ni mm-hmm. li dal Jules Baldé mën a dal n'importe qui soo wax na ko maa ngi koy nuyu passage nañu waajal suñu bopp surtout waajal suñu bopp mooy que xam nga am ak nit ñi jàmm dafa neex tey booy bi amaan na amoon na ñëpp jàmm amoon na ñëpp jàmm liñ gisante bariwul maanaam géej la ñuy daje entraînement loolu laa ko xamee esaat benn lañ mos a bokk journée. Mhm. te nekkul moom maa doon bëre sama benn problème mooy bëre moom muy bëre. Mhm. combat boobu lañ mujj a teg sax mooy combat bu métti ba. Mhm. ñaan fii mu jógee fa mu jëm yàlla na ko gënal. allahumma amiin ko malaaka yërmande teeru. wax dëgg yàlla mu nekk la xam ni vraiment ku làmb yaakaaroon la tey lii yàlla dogal si moom di ñaan yaayam yàlla na ko yàlla may xolu yàlla teg si moom loxo. amiin parce que ñaañu góor sa ñaañu góor ñëpp dem. metti na dafa metti trop di wax ni nañu jàppawaat conseil la pour ñëpp kuy takk ngemb conseil la nañu nañu nañu jàppantewaat jàppantewaat bi mooy que na ku ne ñàkk seen bopp waaw préparé merci ba kenn du xaar kenn ku ma dimbal ñu ma jiitu ci daal ñun bëri waaw dañuy wut xaalis duñu ay noonu si ku si am da ngay dem defar sa këru yaay defar sa këru bopp jënd sa oto mm-hmm. yor say teranga mm-hmm. di dimbaliwaat mm-hmm. te bu yàlla dogalee lool kon ñun mbëri ñun war nañu mën a waxtaan benn waxtaan ba nga xam ne ñun mbëri dañuy nekkandoo benn mbëri benn loxo. mais am ngeen association association yaa ci biir. non non lu tax. waxuñu ma ko de. Giri Bordeaux mooy seen président xanaa contacté wala. man contacté wu ma. Giri yaa ngi may dégg lutteur en activité yaay président bi Moussa Ndoye kenn gën koo nekk lutteur. contacté wu fexeel déggante ak moom parce que yaa jaboote ñëpp. sincèrement pas la contacté wu ñu ma. waaw kon dina la contacté ma contacté woon. Mhm. ah man amu problème man li may man ñun mbëri. Mhm. nañ jàppalante. Hmm. tey lii euh, métti na. métti hmm. na hmm. soxna wax na ko. nañu nañu diit suñu bopp. nañu bopp. te te li laay war rasuul lu waay di def na nga def jàmm. surtout. lu waay di yéene na nga yéene nit jàmm. ndax yaakaar naa ni. nit xamoo fu mu juddoo. déedéet xamoo fu mu màggee. déedéet xamoo fu mu yaroo. déedéet xamoo fu ko yaayam lu ko yaayam defal ak waajuram. nga ne du fi tekkee. waaw ah, lu métti la de. nañ moytu loolu. te olof Ndiaye di wax benn wax garab goo war a doon penc law bi di ko gis ñu baal ma. ba di ko gor. Mhm. te ku yàlla baaxal da ngay baax. absolument gars yi nañu bàyyiwaat xel si ñun ñëpp. Mhm. ñu delloo si xel yi. Mhm. ñu xalaat. suñu mujj mujj rafet moo jarañ ñaan. surtout xam nga di alalu àdduna du dara. mais ñu bëgg ci lépp tekki si tekki si alal. alal lépp loo gis ak ko indi. lan mooy alal nañu yàlla. yàlla yàlla yiir daal amiin te may dégg a topp te taxawu na taxawuñu bu baax a baax a baax loolu ma am solo mm-hmm. di wax nag ni a ah, Pikine ñëpp ñu ngi jaale maa ngi jaale Ama Baldé mm-hmm. jaale booy Niang mm-hmm. di jaale xalif boobu ba muy Eumeu Sène maa ngi koy jaale bu baax ak Sokh jet lii ñoom ñëpp maa leen di jaale wax dëgg yàlla maa leen di bu baax sama diggante moom nag comme ni ci waxoon wax dëgg yàlla mooy la ma waxoon rek biñ ci déggante lama ma waxoon laay waxat Moussa ah lii man leen man lépp lu may defal nit. Mhm. te ngisal tax ko du ma ko def. mën naa nit ki lu muy def da def te yàlla tax. mën naa ko te biñ ci waxaatee am na la ma wax am na loo ma te loolu noonu. Mhm. ñanga sa. Mhm. te noonu lay demee. incha allah rabbi yàlla ko yàlla sottal na ko yàlla sottal ah, waaw. yàlla na ko yàlla sottal mu nekk la nga xam ni di wax ni mëppool. France maa ngi koy remercier moom tamit. Mm-hmm. nekk ku baax. parce que daje nañ fa daje wa daje fa fanaan nañ mm-hmm. nañ ñu ne. mu nekk ku baax ku bëgg Pikine. waaw mm-hmm. ah, ma Paul men waaw ku ah, bëgg Pikine ma ma Paul ku bëgg Pikine. dama wax ne ma Moussa ma nekk naam baax a baax a baax ñu sama mu ni tamit neex na daal neex na affaire yi neex ah, na. Moussa noo gisee émission bi di samp ndënd tey seet si la sampal ndënd koy sampal nag laa xamul ah ndënd kay leer na man nee li ma wax dafa leer ama neex na ñooñu samp samp si moom ah. doon tamit moo sampal moom moo sampal nga sampal ama ma sampal ama ku si ñëw déggoog samay staff pare naa lan ngay tàggatoo waa tàggatoo bi mooy damay nuyuwaat rek ngor ba jalaaw mais mënu bañ a cité tur Cheikh Modou Gueye Pouy maa ngi koy nuyu ak waa famille yëpp ñëpp Cheikh Modou maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax a parce que Cheikh Modou kay yàlla boole nañu 2011. ndeysaan ba léegi mu nekk ka nga xam ni suma suma suma suma suma suma lépp la. ndeysaan du ay diggante sëriñ ak kii de. Mhm. suma lépp la. ndeysaan kon ma koy ñaanal. lépp li bàyyam amoon yàlla na am lu ko raw. amiin barke dante bi. ak ay rakam yëpp nag ñu ñoom jëlee nag ñëpp maa ngi nuyu bu baax a baax a baax a baax ñëpp waaw di wax ni li may tàggatoo ah Cheikh Modou Coumba moo la joxoon téere bi ko dóoree woon toneel mu daaw kooku alaaj boobu li may jox rek moo gën a li may jox ëpp na loolu <laughs> kooku kooku xam nga dañuy cappaandaw day am waaw waaw mooy tëj daal moom kooku mooy mooy mooy di mooy njëkk mooy mujj ah waaw mooy njëkk si Moussa Ndoye mooy mujj si Moussa Ndoye ndax tey ni ki ni ki ni ki dafa am laa xam ne da koy wax mm-hmm. parce que mm-hmm. vraiment di nuyu waa Ndiassane waa Tivaouane yëpp mm-hmm. euh, di nuyu waa Canaba su may sëriñ fa nekk yëpp ma leen nuyu nuyu kilifa diine yëpp nag Ngor Wakaam Yoof ñëpp maa leen nuyu di wax nii a ah, nañ bàyyiwaat suñu xel rek si surtout waa rax di leen ñaax ni leen Moussa Ndoye mi ngi si préparation am ak ku mën a ñëw. man xam naa ne di moom. waaw ak ku mën a ñëw nag. maa ngi ci préparation yi. xaaruma bañ ni suba la jël na avance am léegi maa ngi ci hmm. di wax euh, vraiment maa ngi nuyuwaat ki nga xam ne moom laa commencé. muy monsieur le maire Babacar Mbengue ak ñoom Baro. Hmm. ak euh, ñëpp ñu conseil conseil de conseil municipal yëpp maa leen nuyu baax a baax. Hmm. di nuyu ñëpp. waaw. waaw nuyu ñëpp. nuyu ñi nga xam ne ñoo fi nekk tamit. nuyu suma ak kilifa Pape Sini maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax. Mhm. nuyu waa Ndiobé nag. Mhm. Séné nag. son bàyyi Mbour Sarr Aliou Sarr fan si club président fan si club booy booy bi amul njëriñ xam nga sama waay la mais mooy mooy loolu ñoom Marème Gueye ñoom ñëpp waaw ñoom ñëpp bàyyiwuma leen. Mhm. xam nga tey a Diagne yàlla moo ñu boole. ndeysaan du question ay fan si club ak kii sax. Mm-hmm. Mm-hmm. yàlla ñu day sama doom di yàlla boole ñoo pare. ndeysaan waxtaan lu sori sax man ak moom mm-hmm. maa ko gën a yëpp nag. mais léeg ñu waxtaan man ak moom la nga xam secret la. tey yàlla def na loolu. Hmm. di nuyu ñëpp. Hmm. bàyyi ma kenn. Uh-huh. nuyu ñi nga xam ne ñooy mbëri yaraax li ko dalee tëdd fii ba fii. Hmm. ak fii ñu la fekk. fii. waaw non bërëb bi samay sama bërëb la. waaw ba Aïssa maa ngi nuyu baax. sama gars yi ñëpp. Uh-huh. maa ngi ñoom ñëpp. Uh-huh. Baye Diagne suma suma moom suma collègue sama goro mais sama collègue. waaw yàllaa ñu boole. nuyu sama gars yi ñoom ñëpp. mais li ko dalee caatu yaraax. waaw. Wus Jàmbaar. waaw. ay Xaadim Fay. Mm-hmm. waa Dalifor. Mm-hmm. mbëri fa nekk ak ñoom ñëpp mhm. gournay de ñëpp mhm. maa leen nuyu bu baax a baax a baax mhm. nuyu suma suma rakk yi nga xam ñoo ne sama ginnaaw loo sod nuyu Boynaar nuyu ki nga xam ne mooy Pape Diop ak mbëri fa nekk yëpp maa leen nii nuyu staff bi bu baax a baax baax a baax di wax ni yarax nañu jógaat wax ma la nañ dolli ñi ngi def de nañ dolli nuyu ñi nga xam ni mooy tey mooy ñu jaxatee di Dakar Buzz waaw vraiment émission bi ngeen def ak man macha allah macha allah ndax sori woon naa lool. mais fexe nga ba tànc ma. maa mel noonu man Fadel dama bàyyi kenn waaw Fadel tànc nga ma vraiment mu nekk la nga xam ne yow te yow ku ku yàlla baaxal nga. Mhm. dama bëgg nit ñi xam ko. Mhm. parce que xam nga nit. Mhm. nit dina nekk nit mais du nite. mais da nga nekk nit nite. dañ déggante ma yow ngan ma man daal damay xëy xëy ñëw. waaw man kay maa la bu bu dinaa xëy ñëw su ma la fa fekkul baax na su ma la fa fekkee baax na man nag loolu ma yàlla bindee. du ma mbër may daw sit internet. déedéet. man mën naa la jox jour am fenn fu mu lu nga xam na tànc ma si ma sax ma nga ni mm. foofu. Mm. ma fekk foo ma defee sama émission. parce que fu la fekk rek war nga faa mën a waxtaanee. waaw man parce que mm. mooy li ma la dama amul sens interdit fi ma dëkk te tout récemment bi ñu joxee ceeb fii si au niveau mairie hmm. dama futee ko bàyyi lépp lu mën def dem di joxe ceeb ndeysaan di yenu di yóbbu parce que doomu yaram di yenu di parce que benn gars yi dafa ma laaj site pour lii ma mu nekk man ko que yarax laa dëkk ñuy joxe si biir ma bàyyi lépp presque def naa ko durant koor vingt jours koor gi yëpp nekk muy lu métti en tout cas ñu ngi lay gërëm ci sa disponibilité ngay nit koo xam ni vraiment li may wax rek euh, ñun ak yéen famille lan dëgg la yaw it ngay nit koo xam ne nit ku du li nga toog nii nit ku baax nga nit ku woyof nit ku am xolu yërmande lu baax li nga ci Jules Baldé Junior lu baax lépp waxtaan nañ ci maag yow te lépp nga def ko ngir yàlla na ne ma su ma koy def bugguma kenn yëg ko dëgg la yàlla moo dogal li mu dogal ci Jules Baldé Junior mais tey say bu sotti woon amaana jóg na parce que daj nga ci ne pour mu jóg ci loo xam ne suuf la nag bëggoo ko yëg ñu ngi ñaan jéego yooyu nga ci doon ta dox Ama Balde woo. waaw Eumeu Sène oo Boy Niang ku nekk Pikine ñu ngi la ci gërëm. ndax ñoom ñëpp seen objectif mooy mu jóg. mu jóg yàlla moom mooy doxalee noonu. di gërëm ñi ci jàpp nag. monsieur le ministre Matar Ba na ci encore une fois. def nañ taxawaay taxaw bi ñu nuyu mm-hmm. baax Kéba Kanté tamit ci jàpp na ci ak ñoom Suna Goro Ndoy ak ñoom ñoom ñoom. Goro ñoom Goro Ndoy Goro nuyu baax moom tamit. ñoom ñëpp ñu jàpp ci ak ñoom Pape kon daal ku ci def sa ñu ñaan yàlla yokk la mm-hmm. ah, di am mbégte ci yéen nag seen émission samp moom nii la li ma naan ñun bawunu kenn mbër arbitre supporter fu ngeen nekk dina leen fa fekk jël si leen man Fadel maa leen ko permettre Kéba Karta maa ngi leen gërëm di la siyaar di gërëm nag Alla Dia taalibe Serigne am leen jàmm rek seen émission samp ndënd la am looy dool waay waa kam jumaa ji jot na waaw di li may ñaan yàlla mhm. yàlla na yàlla bu mu nekk suñu mujjanteelu juma. amiin barke di ñaan mhm. yàlla mi nga xam ne moo am jàmm. Mhm. tey jàmm laa te ku mu jàmmal nga am jàmm. yàlla na jàmmal réew Sénégal ak adduna bi yëpp. amiin di ñaanal képp kuy doomu doomu Adama. Mhm. yal na yàlla wattu la. Mhm. yal na yàlla taxawal la. Mhm. ba nga dëgër këcc. yokk wërsëg bi bu baax a baax a baax. di ñaan yàlla sumay rakk yi nga xam ne ñoo nekk samay ginnaaw. rëkk te rëkkuñu ma. yal na yàlla taxaw leen. ku si mel ni Baye Su. Ablaye Ndoye Issa. suma rakk xol bi Paa yal na yàlla defal leen jàmm bili ñoom ñëpp yal na yàlla defal leen jàmm di wax ne yal na yal na yal jàmm jàmm jàmm am rek sonal leen parce que vraiment ñooñu su may rek lañ mm-hmm. su may lépp lañ di gërëmaat di gërëmaat rek ñi nga xam ni mooy waa Mboro mënu ma leen bañ a gërëm waa Mboro waa Touba Ndiaye ñoom ñëpp Touba Touba fële ñoom ñëpp mënu ma leen bañ a gërëm mm-hmm. di wax nag ni waa yéen jalaaw mm-hmm. yéen i géej ak todd ak ñangal ak yëpp kenn yoof nag moom mooy li ma wax aw ma seen fay sumay xarit lañu wakkaam ngor ñoom ñëpp mais surtout surtout waa yaraax fi laa juddoo mhm. fi laa màggee mhm. fi laa yaroo sama lépp yaraax la mu juddoo ma beneen dëkk bu dul yaraax nee a yaraax waaw nee a yaraax ndax waaw waaw nee a yaraax <laughs> parce que vraiment loolu rek fierté la man dama may li may wax léeg-léeg moo ko gars yi man je suis fier yaraax waaw parce dëkk bi nit ñi xamuñu ko <laughs> am na site internet ba nga xam ne indi naa leen uh-huh. ñi doogum commencé du ma uh-huh. seen tur uh-huh. mais yaakaar naa boobu laa leen nga xam ne ñoom laay bi ñu ñëwee ñii mmh. doogam commencé. Mmh. seen première émission yaakaar naa ma lañ ko defal. bi ñu ko defalee dama leen yóbbu si kilifa si yaraax. Mmh. mu leen si kaw sa kanam te léegi ñu ngi leen di dégg. bu ñu yóbbu ma ci kilifa gi mais ñoom. tey kilifa googu dañ wax ne naan comme suma sët ngeen àndal fii si kaw si kanam. yàlla yàlla waaw nangu ñaan mais tey mhm. yàlla na yàlla def jàmm amiin kontaan naa ci di gërëm nag présidente Fanta xam naa koy sànni xel awa mu moom sama moom sama moom sama waay la moom bu jàpp affaire du ah, bu baax a baax a <laughs> rakam tamit mooy président moo organisation bi muy ku ma toog ñu ah, waaw góor man may gërëm waa mbaar mi waaw parce mbaar mi sedd na waaw mbaar mi dafa neex nag fii moom mooy fii dafa feex de waaw fii dafa feex de mbaar mi dafa feex de boo ñëwee nag la wax rek sa waay mooy tëmbal gaaram ñu ànd dem ñu na def yëfi la bu ma tàggu bett ma yow maa yow ñoo far sañ naa dool ci la bu la neex heure bu la neex laa la wax yal na yal taxaw la bu baax a baax a si barke yonent bi vraiment ku baax nga da nga baax yal defal la jàmm li bëgg yaa xam mhm. yal na ko defal lii boolewuñu déedéet lii lii nii boole ñu ngi déggante man ak yow ñu ngi waxtaan yaa ngi sama whatsapp yaa ngi sama lépp loolu am na tey mu nekk su ma juumul ñeenti site eh, ñi yor site internet laa yor seen numéro ñuy waxtaan ak man mhm. dama naan yow la mhm. ak Lamine mhm. yaakaar na jeex na ak jili Fatma moom ma lay wax ak jili ñeenta ñooñu yéen ñeenta ñooñu laa yor seen numéro bu leen mer nag xam nga man faal maa soog rek maa koy loxoti ba génne ko fi mu nekk mais maa ma neex ñëwal xam su ma ko waxee fii di nga ma di nga ma gëm léegi léegi heure boo neex <laughs> ñëwal jërëjëf saa yi maa ngi fi heure boo neex ñëwal jërëjëf bay tabaski lañ nekk ah, ñëpp dañuy tal xar jërëjëf jërëjëf amee doon Dakar ba kontaan nañ ci yéen jërëjëf